asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaye dafa am ay autorités yu fi ñëw Cheikh Sonko dafa yónni dafa ñëw ma fi fekk ma tukki mu yónni ndaw mu ñëw mu andi àddiyaam ne ma nee leen sëñ ne ma defal lii ci màggal bi Bougane Gueye andi àddiyaam ne ma defal ma lii ci màggal bi ak a wuuteeg Macky Sall mi nga xam ne bëggut a dégg diwaan bëgg koo gis Macky diwaan lay waate xawma lu ko diwaan def diggante daaru diwaan diwaan nindi nindi jurbel nga xam ne bi Serigne Touba dund mooy yoonu Serigne Touba woon jurbel daaru diwaan rang-rang sax mënu fa am di de santé mënu fa am école mënu fa waaye bu jeexal na bu jeexalee keneen ki fi ñëw danañu defal liñ bëgg te nag wax leen ko mu dal te teey te wàññi li muy def Sëriñ Fàllu <coughs> dafa jàppale Senghor bam falu bi Senghor faloo ñu toog ay ab diir Senghor delsi ñëw ci Sëriñ Fàllu ne ko ah Mbàkke ñaanal nga ma ba nekk président waaye dafa am lu des lu ma ragal lool mu ne ko lu des loo ragal mu ne ko damaa ragal kaso mu ne ko ak lan mu ne ko damaa ragal ku ma ci ngóor sëñ Fallou ne ko tàmbaliwaat ko <coughs> mu ne ko Mbàkke damaa ragal ku ma mu ne ko bul rey kenn mu ne ko Mbàkke damaa ragal kaso mu ne ko bul bul tëj kenn loo bañ ku la ko def bu ko def kenn kon kii tëj ñépp mën naa mujj foofu wasalaamualeykum aleykum rahmatullah والقلم وما يسطرون